référence plateforme d'information. mbokk internet yi safo Feeling Dakar TV dal leen ci xibaar yi li ci gën a fës ñeel Bassirou Diomaye fay secrétaire général bu parti PASTEF moom nag ginnaaw bi ñu ko fekkee ci buntu bërëb liggéeyukaayam di buntu impôt et domaine vers 22h daal di koy jàpp mettroon ko en garde ginnaaw bi nag ñu nga ñuy xamal rek kii di Bassirou Diomaye Faye daal dinañ koy placer sous mandat de dépôt di ko toppee diffusion de fausses nouvelles ak outrage à magistrat ak li nga xam tey nag ginnaaw loolu le daal dinay tax ba ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca waa impôt et domaine daal dina ñuy waajal rek li nga xam ne moom mooy ab doxaanub ñaxtu ngir rek daal di ñaxtu li nga xam ne jàpp nañu ko seeni ñoo ñi nga xam ne ñoom ñoo doon liggéeyee biir impôt et domaine ngir rek ñu daal di leen di libéré keneen ku ñu jàpp di Coro Mandela bu Walf TV moom Coro Mandela nag ginnaaw ab journaliste bi mu doon di ab activiste bu ñëpp xam moom nag dañu ko tuuma rek wax ni dafa bokk ci groupe toppka boobu nga ñi nga xamante ni ñoom ñooy célébrité yi ginnaaw nag umu xayri ak Rokhaya Dabatine mi nga xam ne jàpp nañu leen ak Mame Bassine ak it ñeneen euh, daal dinañuy jàpp ki nga xam ne moom mooy Coro Mandela waaye nag li ci mooy ni moom Coro Mandela moomu daal dinañu koy déféré au parquet de Dakar ñu wax euh, ci euh, géejawaay benn imam boo xam ne rek daf doon jiite jumaa ja moom moo daal di ñàkkuk bakkanam ginnaaw rek ab naafila bu mu doon amal ca ñaareelu ràkk ba nag ca la daal di ñàkkuk bakkanam ñu koy ña suuf ci kawam bu mu doon amal moom imaam boobu lee nekk ca géejawaay ci la daal di defub ba génn ci àdduna ñu koy ñaanal bésub 17 avril di bis bu ñuy màggal Cheikh Béthio Thioune ak dajeem ak Serigne Saliou ñu gis ne nag cantaakun ñi doon nañ koo feete bu baax a baax a baax ku mel ni Seydina Thioune di Serigne ki ki nga xam ne moom mooy Omaro waaye tamit di doom ci ki nga xamante ni moom mooy Serigne Béthio Thioune moom nag daal dina koy feete daal di indi ay berndem waaye nag la ca bees bokk na ci Wally Balago Seck mi nga xamante ni tàmm wàll wa daal di nay ñëw rek daal di uh, yeesal ak njébbalam ci ki nga xam ne moom mooy Seydina Thioune waaye tamit uh, daal di uh, dëgëral li nga xam ne rek moom mooy ab àndam ak ki nga xam ne moom mooy Omaro boo xam daal di koy xam ak Seydina Thioune waaye tamit jamono ji ma nga ànd ak Wally ànd gu sax dàq ba tax sax mu daal di ko yóbbu ca kër sëriñam sëriñam it di ko tagg waaye tamit di ko gërëm di wax ne kii di Wally Seck ñëw na ak i xéewalam yu baree bari ci Wally moomu sax la ñuy desandi ndax nag ginnaaw ba mu daal di demee ca kër cantakun Thioune ma ngay préparé ab euh, demam fële ca Paris euh, ngir rek daal fay tëgg biir doom de Paris euh, ginnaaw bi nag ñu mu daal di def ab live rek di ca bégal ay fansam waaye tamit di leen jox ay koppar yu duun ba tax na rek ma ngay waajal li nga xam ne moom mooy doom de Paris ngir rek daal di cay bégal fansam yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew ay soppeem nag ay flowasam daal di ciy bëgg lool ginnaaw bi nga xam ne rek ma ngay waajal ngir dem ca doom de Paris moom Wally Ballago na nag soxna ci euh, Serigne Béthio Thioune moom soxna Aida daal dinay euh, feete li nga xam ne moom mooy daje bi nga xam ne euh, Serigne Saliou daal dina koy dajeek Cheikh Béthio mu nekkoon 17 avril mu doon nag loo xam ne feetee na ko ca Médinatul Salaam ca Mbour waaye nag ginnaaw bi gis nañu ne cantaakun yu ci bari wala sax ñu ci ëpp daal dinañuy dem fële ca kër soxna Aida Saliou ngir rek daal di koy jébbal ak addiya waaye tamit yeesal seenu ko njébbal ci moom daal di koy jox lu ëpp ci 200 millions moom soxna Aida Diallo nag yamul foofu ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy taalibe yi eh, waaye tamit di dukkat dukkat gu amul àpp waaye tamit bernde ya nga xam ne daal dina koy bernde taalibe ya ñoom taalibe ya ca boppam di taalibe yi cantaakun yëpp ña ngay sant ak di gërëm soxna Aida eh, do na mu ci moom lool ba sax taalibe yi daal di yëkkati kàddu yu ngërëm teg ko ci kaw di soxna Aida ñu wax ci eh, toche bu télévision Futur Média waaye tamit di ab artiste comédien moom toche nag daal nay woote ab social di ca joxe ab ndogu waaye nag ñu nemmeeku ca lu ñu mësta nemmeeku bokk ci ab bâche bu présentable lool waaye tamit ay table à yow xamante ni nemmeeku nañu ko ca bësam ba moom tos mu woote nag ab joxeb ndogu waaye nag gis nañu ne ñu bari ci artiste comédien yi daal dinañu koy wuy si ba ci sax ñi nga xam ne ñoom ñooy waykat yeeg ñeneen daal dinañu koy wuy ku ci mel ni Mohamed Alla Diop ma nga yëkkati ay kàddu yu ngërëm ak coloré gi nga xam ne na ci ab mariage boo xamante ni rek doon nañu wax ne moom lañ bëggoon a lancé muy mariage am ak ki nga xam ne moom mooy Maam Jaara bu Thiès di Cathy de la série Virginie ginnaaw bi ñu yëkkati ay kàddu yooyu nag Boy Poul meloon ni rek dafa doon tooñ di wax ne kii di Toch dafay waajal ab mariage am ak ki nga xam ne moom mooy Cathy de la série Virginie yaayam nag daal dina koy démentir yaayu Toch ci boppam démentir na ko di wax ne euh, kii di Toch bu ma ko mayoon fit ba léegi takk na ndax nag euh, xam naa ko te am na fitam waaye nag dama bëgg a bàyyi ba ay magam magam daal di takk mu doog a euh, takk soxna waaye nag des fois mu wan ma ay photo jigéen yoo xam ne dama naan ko ànduma ci wala sax ma ne ko xoolal ba mu doy la waaye nag du ma ci dugg benn yoon ndax dafay bëgg a xam sama yi ngir rek euh, xool fan laa taxawee waaye mayu ko kanam ndax nag ñimewu ma it bu ma ñime woon ba tey takk na soxna kooku nag di yaay tos moo daal di xamle mbir mu ni mel mu mel ni rek kon àndul benn yoon ci digganteem ak ki nga xam ne moom mooy jaara di kat yi série Vigile yi ñu wax ci euh, moom nag di artiste chanteur live bu mu doon amal daal di invité Sidi Diop mu daal di dugg ca live ba ña nga waxante nag ay kàddu yu doy waar di kafakaree di wane ne rek seenub complicité yàgg na lool waaye nag ginnaaw bi rek kii di cat dafa daal di wax ne Sidi Diop bu yaboo nga xam ne ki yor sa clavier bi jote naa ak moom ba tàyyi moom Sidi Diop nag ma nga ko naan yow xanaa ñëpp nga xeexal dama lay laaj a kan nga xeexaloo te ginnaaw bi nag ñuy euh, waxante lu baax ak defante mu daal di léegi damaa war a yóbbante sama waa kër daal di jox sama yaay li nga xam ne moom la war a korité ba tax na rek la yàq live ba bokk na ci ab baysal mi nga xam ne daal di dañu ko cay tudd muy baysal mi nga xam ne moo nekkoon manager u Sidi Diop ba mu ko tuddee nag ca la ko Sidi Diop wax ko ko boo ko tuddaatee rek dinaa génn live bi ndax nag bëggul woon benn yoon mu daal di nommé ki nga xam ne moom mooy baysal ca biir live ba ginnaaw bi nag ba Thiat Seck waxaatee turam ca la Sidi Diop daal di quitté live ba mu doon nag lu followers yépp di ñaawlu ndax nag bu dee benn fan rek ñoom ñaar ànd nañu ko kon nag amul benn yoon loo xam ne war na koo mën a tax mu bañ ku ko tudd moom Sidi moomu moomule. ñu wax ci ab cant gu mu doon amal mu Ndiogou Afia Ndiogou Afia nag ginnaaw cantam googu nga xam ne juróon na coow ñu gis rek ay jigéen yoo xam ne dañ ci doon lëmbal ak di ca def naka su noonu cant ga nag ci fàttali ma nga amee woon ca Medina moom Ndiogou Afia nag ginnaaw bi gisuñu ko benn yoon mu àddu ci mbir mu ni mel waaye nag gis nañu ne ñaari jigéen yooyu le daal di nañu cay àddu daal di wax rekk ne ñu ngi jégalu Sénégalais yi. donte sax nag xamuñu woon ne mbir ma dina feeñ bay yegg fii mu yegg waaye nag ña nga cay jégalu bu baax a baax ndax nag cant baaxoowul benn yoon ñu cay lëmbal ak di ca euh, def naka sudut noonu ñu wax euh, ci Kumba euh, Gawlo Seck moom Kumba Gawlo Seck nag ginnaaw ab conférence de presse bu mu doon amal daal di lancé li nga xam ne rek moom mooy revenir am sur la chaîne musicale moom nag daal di nay ab vidéo di wone rek ni ma nga ca liggéey ba te it daañu ko gis ci lu yàggul dara ginnaaw bii di ñëw dina dem ca milieu des civilisations noires ngir euh, benn spectacle boo xam ne rek daañu ko fa amal moom nag dana bokk ca artistes ya nga xamante ne rek ñu leen fa gis moom Coumba Gawlo sekk ginnaaw bi mu toogee ab boo xamante ne rek dafa amee woon feebar ci ak baatam ginnaaw bi rek ci la daal di euh, wax loolu waaye tamit defub vidéo di dalal xelub ñi nga xam ne ñoom ñooy ay fansam di leen wax rek euh, dina ñëwaat bientôt sur la chaîne musicale ñu wax nag ci oustaz Alioune Sall moom nag ginnaaw ab entretien bu mu doon amal ci benn chaîne télévisée Gueye mu ngi xamal nit ñi rek ne li ko gën a marqué bokk na ci lu muy fàttaliku juróom bu jigéen bi mu génnee àddina moom nag ma ngay xamal ne nit ñi kii di juróom bu jigéen dafa féete woon ci moom fu sori waaye tamit taxawu koon ko lool génn na àddina donte sax nag du benn doom boobu kese la ko am waaye nag fa mu ko tolloon bu sañoon a wax ne sax moom moo gënaloon yaayam ci ay doomam yépp dina ko wax waaye nag yaayam daal ku sori woon la ci xolam ba tax na da daan liggéey waaye ni fa la yaayam ne ngir rek daal di koy jébbal la mu fayeeku ngir rek am ñaanu wayjuram kon nag amoon na fa yaayam toll ma nga koy fësal ak di ko wane di wax ne rek li ko gën a euh, metti wala li ko gën a marqué bokk na ci li wayjuram bu jigéen boobu lee dëddu ñu jeexalee ko ab euh, vidéo boo xam ne mi ngi circuler sur la toile moom nag euh, di ab vidéo boo xam ne dafa ñeel kii di Ama Baldé lutteur ginnaaw rek coow loo xamante ni doon nañ ko nemmeeku moom ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang dañu ko amoon Ama Baldé nag mu mel ni génn nañu daal di lu ni mel ndax ña ngay gisante ñoom ñaar ñuy waxtaan wax wu amul àpp leneen rek lu ñu gis di ab vidéo boo xam ne ñeel na ko moom Ama dem ma nga toog di woote mbeeraay waaye tamit di seggub café ba tax na sax ñu gis ca doomu Dudu Yaay kat yi di xaadi mi nga xam ne moo amee woon problème mu bët ba tax na rek ñu ngi ko ca gis mu mel ni kon dafay fësal ni rek ak wér daal dina koy dikkal ba tax na rek muy wane ak mbégteem waaye tamit di mbeeraay ca boobu les vidéo moom ak Ama Baldé ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy seeni ñooñ mbokk internet yi fii la ñuy tàggoog yéen di leen jox di daje ni ëllëg incha allah fii ci Feeling Dakar TV la chaîne leader. Deezertech, Deezertech. Vous êtes étudiant, élève ou professionnel. Vous souhaiterez acquérir ou développer des compétences dans les domaines de l'informatique, numérique ou digital. L'école Deezertech vous propose des formations accélérées, pratiques et qualifiantes de 3, 6 ou 9 mois avec des professionnels dans leur domaine. Nos modules informatique bureautique, maintenance informatique, administration, système et réseau, infographie audiovisuelle, développement web, marketing digital Vous pouvez aussi apprendre la gestion de caisse, comptabilité et finances, secrétariat assistant de direction et des cours d'anglais. Nous sommes à HLM Grand Yoff à côté du collège Yacine Touchandou. Appelez-nous au 33 867 08 bu ñu kenn sonal ci awma billet billet amul jëla jënd sa billet gars yi benn coow été lañ jëm mois de juin mu def tuuti tàng xale yi def ci choc góor yi def ay déchiré ma génn fi ma sàpp daan daan ñëw ñu bëgg leen le 3 juin 2023 yéen ko doon laaj seen bëccëg noonu dem leen ngeen jënd seen billet yi nag bëgguma benn coow bëgguma coow ah.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 Dakar, notre plateforme d'information.